moom mooy porte parole bi nga xam ni mooy mouvement des élèves des étudiants républicain bi bokk ci parti bi nga xam ni APR ndax dafa toog ci plateau télé di jël ay tuuma di ko teg ci suñu kaw te tuuma yooyu bokk na ci ni ñun dañuy utiliser li nga xam ni moom mooy argent sale te xam nañu argent sale ñu koy utiliser ci dëkk bi di wax ni bu fekkee terrorisme dafa dugg ci dëkk bi ñun dañoo bokk ci ñu koy dugal te ñun ku ñu xam xam ñu ci manière pacifique boo xam ne dañu ci xeex moo tax du ñu nangu du ñu may kenn benn mbindeef mu jël tuuma yoo xam ni ay kàcc kase la di ko teg ci suñu kaw ndax ñun ay citoyens yu honorable lañu ñu dëkk ci dëkk bi nekk ñoo xam ni ñu bëgg dëkk bi moo tax ci fan yi dinañu woo presse bi dem déposer plainte boo xam ni contre moom non seulement moom mu wax ñu firnde yooyu fu mu ko teg waaye aussi mu wane ni keneen koo xam ne bëgg ngaa teg tuuma yooyu ñun dinañu pare pour jaar ak yow foofu ndax jàpp nañu ni dëkk bi dëkk yoon la bu yoon deful kiiwam nag liggéeyam ñun FRAPP France dégage justice dootuñu woo ñu wuyu ko parce que jàpp nañu ni warul am ñaari citoyen ci dëkk bi ñi nga xam ni dañu leen di jàpp di leen noot suñu nekkee suñu seen i droit ak ñi nga xam ni dañuy toog fële di saaga ak di xawi war ma citoyen yi je pense que loolu ci fan yii di ñëw dinañ ko def incha allah